alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika nabiyyinaa muhammadin sayyidil anbiyaa'i wal mursaliin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin. amma ba'd. mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal sunu boroom tabaaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem. mbokk jullit yi ñu xam ne ragal sunu borom tabaraka moom yi mooy ngën ji yóbbal boo xam ne boro nit ki dana wuy ji boroomam fekk mi ngi ko yóbbaale borom bi nee na wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa yóbbalu leen te xam ne yóbbal bi gën ci yóbbal mooy ragal sunu borom tabaraka jaadu na ci bépp jullit nu wattandiku bépp lépp loo xam ne bàkkaar la moo xam lu ñuy tudde bàkkaar bu ndaw la wala lu ñuy tudde bàkkaar bu mag moo xam bàkkaar bu nëbbu la moo xam bàkkaar bu feeñ ndax bàkkaar kat mooy musiba moo xam ne bépp jaam bu ko yóbbaale ci boroomam yaa ngi yóbbaale loo xam ne si lu baaxut ci yow la yaa ngi yóbbaale loo xam ne musiba la ñu xam ne nag bakkaar yooyu li musibaam di rëy rëy ndax ku ca sax ba yóbbaale ko mën na laa jural musiba ëllëg yoo xam ne bokk na ci musibay bàkkaar yi mooy am na ci yoo xam ne day yàq jëf su jëf yu baax ya nga defoon sonn ca ba noppi am na bàkkaar yoo xam ne bu ko nit ki defee lam defoon day yàqu wala yaasu billah moo tax borom bi tabaraka wa taala ba muy digal jullit yi ñu topp yàllaa ko yonentam it daf leen a wattandikuloo lépp loo xam ne dafay yàq jëf mu ne yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàllaa ko yonentam nee na atiu llaha wa atiu rasul na ngeen topp yàlla moom yi ngeen gëm ak yonente boobu yi ngeen gëm wala tubtilu amalakum seen jëf yu baax yi ngeen góorgóorlu ba amal ko wattandiku leen a def leneen loo xam ne bu ñëwee day yàq jëf jooju yooyu di yàq jëf nag sunu borom tabaraka wa leeralal nañ ko ba xam nan ko ñu xam ne ci bàkkaar yi gën a garaaw ci la bokk kon sunu xutba tey bi dafa jëm ci muxbitaatul amal yi nga xam ne jullit bi day def jëfam ju baax ba noppi def ko loola yàq jëfam mel ni deful dara wala yaasu billah ba ca jëkk moo di al irtidaadu an diinillah tubbi nekk ci diine lislaam ba mu yàgg nga def loo xam ne day génne nit ci lislaam loolu sunu borom tabaraka wa taala ku ko def la nga defoon lépp yàqu na dara desut fa boo tuuboon ba delsiwaat ci lislaam yi da tàmbaliwaat waaye lu jëkk la moom yàqu na borom bi nee na wa man yartadid minkum an diinihi fa yamut wa kaafir képp koo xam ne tubbi na jóge ci diine yàlla ji faatu yóbbaale kéefër fa ulaika xabitat amaaluhum fi dunya wal axira nee na ñooñu seeni jëf na ci àdduna ak ci àllaaxira yàlla nañu yàlla musal ci loola mu teg ci ne ulaika asxaabu naari hum fiha xaalidun ñooñu ñooy waa sawara te dañ fay sax ba faw te kenn mun leen faa jële loolu tubbi moo koy waral maanaam génn diine koo xam ne bokkaale koy waral wala tubbi déclaré sa tubbi wal nga def loo xam ne day tax a tubbi wala iyaasu billah loolu mu ne fa yamut wa huwa nag am na ay lenn ci exception yu am ndax am na farata yoo xam ne lu mel ne aj lenn ci boroom xam-xam yi nee nit ki su doonoonu jullit dem aji màkka ba dëls di dund ci lislaam ba mu yàgg wala iyaasu billahi mu tubbi génn lislaam waaye yàlla baaxe ko bi mu daataan faatu mu duggaat ci lislaam boroom xam-xam yi wax nañ ne ak aj waraatu ko ak aj waraatu ko ndax aj gam defoon daf fay nekk ndax borom bi dafa waxoon ne wa man yartadid minkum an diinihi fa yamut wa ñi nga xam ne dañoo tubbi ba yàlla nee na ñooñu ñoom ñoom la yenn jëf yi nga xam ne ah ko ki defee maanaam farata joo xam ne benn yoon lay doon su ko defee ci dundam ba noppi génn diine duggaat ci diine farata ja dafay nekk su ma ne ajuwaat nag naafil la baax na wala bu ko jàppee farata it ba tey baax na borom bi waxaat ne wa man yakfur bil imaani faqad xabita amaluhu wa huwa fi l axirati min képp koo xam ne nekk na ci ngëm ba mu yàgg nee na nga génn ci maanaam tubbi nee na kooka jëfam yàqu na te bu ëllëgee day perte borom bi waxaat ne yéefar yi nga xam ne wala ñi nga xam ne dañu doon jëf-jëf yu baax ba mu yàgg ñu génn diine borom bi nee na liñ defoon lépp dama koy tasaare mu doon ab dóom tasaaroo ci ngelaw li moo tax mu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura jëpp jëf jum baa ju baax jum def te ngëm yàlla nekkoon fa wala nekku fa sax waaye ñàkk ngëm yàlla la faatuwaale na xam ne lu mu mos def ci lu baax lépp moo pënd bu naaw ci ngelaw li mooyam du ci jëriñu yonentam bi alayhi nga xam ne mucc na ci lépp luy nuru bàkkaar bu mag teewul borom bi tabaraka wa taala wattandikuloo na ko bokkaale wattandikuloo ko mboolem yonent yi jiitu woon ndax loolu mooy génne nit ci diine mu ne ko wa laqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk nee na ko wàcce naa ci yow ni ma wàccee woon ci yonent yi la jiitu ne bu fekkee ne dangaa bokkaale sa jëf day yàqu wala na min alxaasiriin te da ngay perte su fekkee borom bi tabaraka wa taala yonent bi lay waxal di wax ak moom wax ju leere noonu di ko wax ne ko boo bokkaale sa jëf jëpp màbb na te da ngay perte wax ko mboolem yonent bu mu mas a yónni itam ndax daf ne wala qad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablik su fekkee ne noonu la ko waxee yonent yi wax ko yonent bi ci mujj te gën ci mu ne ko boo bokkaalee da ngay perte te sa jëf day màbb kon keneen ku dutub yonent war nga tiit ci lépp loo xam ne luy màbb jëf la rawatina su fekkee bokkaale la bokk na ci ñaareelu bi yi nga xam ne mooy tax jëf màbb mooy am lenn loo xam ne dafa nekk ci diine lislaam ñëw ci alxuraan wala bu ñëw ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam loolu ba noppi bañ ko bañ ko mën nga koo tëlee nga xam ne lii day mënoo ko waaye nag am nga yéene soo ko mënoon def ko waaye nag nga gëm ne daal lii ma gis nii daal bëgguma ko ci sama xol te fekk ci diine yàlla ji la nekk yonente yàlla ba andi ko ku ko def sa jëf màbb na borom bi tabaraka wa taala moo ko wax ca nee na dalika bi annahum karihuu maa anzala allahu fa axbata amaalahum nee na ñooñu bañ giñ bañ li yàlla wàcce moo tax mënuñoo jëf-jëf ju baax luñ jëf ci lu baax yàlla màbb ko kon jullit bi dafa war a bëgg lépp lu nekk ci diine lislaam lu sax ci alxuraan wala sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ci pas-pas la jëm wala dafa jëm ci ay jaamu yàlla wala mu jëm ci ay jikko wala sax melokaan yi nga xam ne sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ab jullit na mel nii léeg-léeg nga dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ay kàddu yoo xam ne di ko sànni defe ne lu woyof la saboote loo xam ne ci nit nga ko gis te fekk loola lislaam moo ko santaane comme jigéen juy muuru wala góor gu bàyyi sikkimam wala nangam yu mel noonu nga gis ko di ko doyadal wala nga di ko xeeb fekk santaane la bu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jullit ba gëm ne na muy julleeg na muy woore noona la ko loola ware mu di ko jëfandikoo noonu ngay saboote loolu te fekk loola ci diine ji la bokk yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bari na ko sànni ak kàddu xeeb ko lool waaye kàddu googee tabbal ko ci biir sawara ci xóotaay boo xam ne bala moo tàbbi ca ndett la dana am juróom-ñaar fukki at ci yoon wi door a àgg waliyaasu billah ñetteel ba mooy njistal njistal kooku musiba bu mag a mag la moo déggtal ñooyam mooy li nit ki def bëgg nit ñi gis ko ndax ñu mën koo tagg ndax ñu mën ne kii mooy waaja kii mooy jàmbaar ji kii mooy boroom xam-xam bi kii mooy liggéeykatub lislaam bi jàmbaari lislaam bi fekk bi muy jëf loola la ci jublu wala ndéggtal ci kaw ne nit ña nañ ma dégg gëm ne man maa mel nii maa diw sàngam maa toll nii maa mel noonu yooyu yépp ay musiba la yoo xam ne dafay yàq jëf yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na inna allaha laa yaqbalu min alcamali illa ma kaana xaalisan wabtugiya bihi wajhu nee na yàlla du nangu ci jëf lu dul loo xam ne yàllay kese moo tax nga def ko amut leneen loo lal ci suuf adduna li ci biiram buñ ba buñ la wanoon gannaawit te nga gëm ne ko yonentam dañ koo bëgg loola ca ngay nekk boo doon rafetal jéemali ci doomu aadama ji gëm ne da ngaa war a rafetal jëm ci moom ndax yeeyoo na ko te santu la ci waxu la ci sax kàddu gu rafet du tee da ngay continuer ci loola ndax jëflante woo ak moom waaye ki ngay jëflanteel mooy borom bi tabaraka wa innama nutimukum li wajhi la nuridu minkum jazaan wala shukura noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala bokk na ci te ñeenteel bi xotti ormay diine sunu borom tabaraka wa loolu nag mooy moy yàlla xeeti mooy yàlla yi ku ko doon lim daanaka du jeex moo tax lislaam buy digle day digle yu baax yi araamal li muy araamal rek waaye li am ci ay mooy yàlla yu aju ci pas-pas wala mu aju ci lu nit ci du tudde jaamu yàlla te fekk doonul jaamu yàlla wala ci wàllu jikku yi ak doxiin yi ak jëflente yi surtout ci wàllu alal foofa li fa nekk ci ay mooy yàlla bari na lool yonente bi sallallahu alayhi wa dafa ma mas a wax ki ñu nettali xadis boobu mooy sawbaan muy ndaw loo xam ne ci biir kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi la nekkoon di ko defal lenn ci ay liggéeyam yonente bi alayhi ne man day am na nit ñu ma xam yoo xam ne ci sama xeet wi lañ bokk ëllëg ci yowmal qiyaam bu jotee dañuy indi ci ay yiw ay yiw loo xam ne tol na ne montagne tihaama montagne tihaama buñ ko waxee ca xijaas ak najd ab silsila la maanaam benn chaîne bu continuer rek doon ay doj yoo xam ne da koy xool ba fa sa yam lépp nekk ay montagne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na indi ci ay tuyaaba loo xam ne tol na ne montagne yooyee mu teg ca ne sunu boroom tabaraka wa taala day jël tuyaaba jooje def ko pënd mu naaw duñ ca jëriñu sallallahu alayhi wa bi mu bëggee yam foofu nag sawbaan ne ko yow yonentub yàlla bi ñooñi dañoo bëgg nga wax ni ñu mu doon ndax nun kat bëggunoo bokk ca ñooña te fekk yëgunu ko bëggunu caa bokk te fekk yëgunu ko yonente bi wa sallam ne ko ah, ci seeni bokk lañ bokk ak yéen deret maanaam ay doomi aadama lañ wa yaxuduuna min alleyli ma taxuduun bu ngeen di naafila guddi ñoom it ñu ngi guddi maanaam li ngeen di def ci ay jaamu yàlla dañ koy def kom yéen waaye dafa am lu leen wootale ak ñoom nee na walakinnahum aqwaamun ida xalaw bi maxaarimillahi intahakuha nee na ay nit lañ yoo xam ne buñ wéetee foo xam ne doomu aadama gisatu leen ya yàlla doon tere bañuñu koo def dañ koy def buñ wéetee rek def lu yàlla tere kooku nag musiba mu rëy la moo xam ne jullit bi war naa wattandiku boppam ndax kat ab nattu la ci nit ki fan la ngëm yàllaam toll nit ki wéet ci néegam boo xam ne kenn nekku fa digganteem ak yàlla rek moo ca des ndax nit ñaa taxoon mu bàyyi mooy yàlla wala yàllaa taxoon nit ki tukki foo xam ne moom doo nekk kenn gisatu ko koo ko xam ko lu ko neex mën na ko ko neexee kooka danañ ko natt ba xam nit ko xamoon ñoo tax mu doon daw ak mooy yàlla wala ndax boroomam moo taxoon mu mooy ak yàlla te sun boroom tabaraka wa taala léeg-léeg day natt jaam bi ku gis tey mooye yi nga xam ne doomu aadama moom lañ yor tey ordinateur yeeg téléphone portable yeeg li ci nekk ci biir ci ay njaaxum ab natt la ci jullit ndax bu weeteeg moom foo xam ne kenn nekku fa dana génne mooy yàlla yooyu nekk ci biir portable bi di ko xool biir ordinateur bi di ko xool ci biir internet bi di ko xool ni mu koy dawee ci biir mbooloo mi ndax dana ko dawe noonu ci biir néegam ba wala ci roqam ba wala fa kenn nekkut foofu natt bu mag la ci jullit boo xam ne war na ko wattandiku saxaaba yi natt bu mel noonu daf leen a Abu Talha mi ngi koy nettali aaya eh, alquran bi sax tudd na ko daf ne yaa ayuha alladina aamanu la yabluwannakum allahu bi cheyin min alsaydi tanaaluhu aydikum wa rimaaxukum saxaaba yi Abu Talha nee na dañoo génn xam nga ku armal ba noppi dañoo araamal ci yow ngay rëbb sañatoo rëbb nee na ñu nekk ci yoonu màkk wi mboolem mala yi nga xam ne dañ leen doon rëbb ñi ñëw di taxaw ci seen wet di leen romb kooku natt la bu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala ba xam nooy def moo tax mu ne la yabluwannakum allahu bi cheyin min as-sayd yàlla dana leen rëbb dana leen nattu ci dara ci am rëbb moo xam ne dana leen jege jege goo xam ne tanaaluhu aydikum boo tàllalee sa loxo da ngay jàpp kéwal gi wala nga jàpp lëg gi wala nga jàpp dara wa rimaaxukum boo tàllalee sab xëy da nga koy jam lu tax mu ne li ya'lam allahu man yaxaafuhu bil xayb ngir yàlla feeñal feeñal ci yéen ñi ko ragal ci lu nëbbu nga xam ne bu ñu yàlla itam nañ meloon rek lañuy ñuy mel bu ñu weetee fi béréb danañ yëg ne weetuñu ndax seen borom tabaraka wa taala lañ nekkal kon saxaaba yooye taxawoon armal di aji ñu xaraamal ci ñoom ñu rëbb mboolem rab yi nga xam ne ñoom lañ daan rëbb ci àll bi ñu ñëw taxaw di leen riisu buñ tàllalee seen loxo jàpp leen kooka natt la ba xam nan la ñuy jëflanteeg ñoom waaye yow mii nga xam ne dañoo araamaloon ci yow nga xool lu xaraam boo doxee ci mbedd mi boo dajeeg jigéen ju muuruwul sax da nga damm sab gis nga dem ba jumtuwaay ya nga yor nit ñu rafle def yaram yi nee na nga ca biir ndax ñooña da ngay boyal di xool nu la wala da ngay gëm ne lii natt bu nuroog natt bañ doon nattu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa la su ko defee mooy yàlla googu nga daal di koy daw kon loola ci lii màbb ay jëf ci la bokk moo tax mu ne ñooña ànd lu baax lañ defoon ba mu toll ne montagne tihaama ya sunu borom tabaraka wa daf koo def pënd mu naaw lu tax nee dañ doon def suñ wéetee rek xotti ormay yàlla li yàlla araamaloon ñu def ko bokk na ci it yi nga xam ne day màbb jëf mooy jëf-jëf ba àggal di won kooka ne ko yow lii nga am maa la ko defal su du woon ak man doo am nangam su du woon sama sarax yi kon famille sangam duñ am nangam wala nga taxaw ci mbooloo ma ne am na nangami famille yoo xam ne de man maa dindi ci sama poos di leen jox bu dul woon ak man at mi ñu génn kon danañ dund dund gu jafe kooku lañ tudde alman te lor dafa cee nekk ci ki ko defal ki ko defal ñëw taxawal ko ko wan ko ne ko man maa la dimbali maa la defal nangam maa la defal nangam mu taxaw ñi di ko gis kooku su ko waxee ak su ko waxut mi ngi loru moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne yaa ayuha alladina amanu yaa ayuha alladina la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada bu leen yàq bu leen yàq seen defug lu baax seeni sarax wala seeni asaka bu leen ko yàq ci anam goo xam ne la koy waral mooy tiitaroo ko ci kanam nit ñi wane ne maa def nangam maa def naa maa bokk na ci yooye itam yi nga xam ne day yàq jëf mooy bàyyi jullik farata bàyyi jullik farata ñëw na ci xadiisu Burayda radiallahu taala anhu bi nga xam ne mu ngi ci saxiixul Buxaari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man taraka salaata al asri xabita amalu ku bàyyi julli takkusaan nee na sa jëf màbb sa jëf màbb julli takkusaan la wax waaye julli yépp la wax ndax al imaam ibnul qayim nee na bi li muy wone mooy bàyyi bàyyi julli ñaari xeet la am bàyyi ak julli ak bàyyi mboolem julli yi nee na ki bàyyi ak julli gennuk julli ci bis bis booba leneen loo fa def lu baax lu ne màbb na booba bis moom doo fa amaat dara xëy nga daal julli woo fajar te yaa ko tey boo boo joxe woon fi sabilillahi li nga mën lépp wala nga def lépp loo xam ne lu baax la waaye am na julli goo julliwul ci bis boobee te yaa ko tey jëf jooja moo pënd buñ sànniñ mooyam muy takkusaan muy timis muy gee noonu la mel ki bàyyi ak julli ci bis ay jëfam yu baax day màbb ca bis booba mu ne nag ki bàyyi mboolem julli yi nag nga xam ne moom jullee tut nee na kooka ak lu mu mën a def ci lu baax ci àdduna moo pënd ñooyam du ko jariñoo wala iyaasu billah kon ñu xam ne julli doonut loo xam ne lu ware sa doyadal la juróom-ñaareel ba moo di teg say condition ci sa kaw boroom ci kaw yàlla ne yàlla dana def nangam léegi léeg nga dégg ko ci làmmiñu ñenn ñi léeg-léeg nit tàng wala mu gis lu bon sax ba jàpp ne diw sàngam yàlla du ko jéggal wala diw sàngam day tàbbi ajana yooyu déedéet loolu kenn du ko waxal yàlla loolu yàlla koy waxal boppam akub yonentam waaye yow amoo sañ-sañ foofa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñu koy nettali mu ne dafa am genn waay mu ne yàlla de du jéggal diw sàngam yàlla du jéggal diw ndax rek yu bon yum gis ci moom waaye nee na borom bi tabaraka wa taala ne ana kan kii jëli condition bi ko ci sama teg ci sama kaw mooy kan man alladi allah alay bay wax ne du ma jéggal diw ne jéggal naa ko waaye yow màbb naa sa jëf nee na noonu la ko sunu borom tabaraka wa tontoo nen ko jéggal naa ki nga doon wax ne desu ko jéggal yow mi yaakaaroon ne yaa ko gën faf dépensé naa say jëf nag amatoo dara fi man kon loolu itam lu ma tawattandiku la jullit bi li dox digganteem ak mbokki jullitam woo leen ci lu baax woo leen ci njub tere leen lu baaxut waaye nag atte nag seen digganteeg seen boroom loolu du sa wal bu mu baax ba nga taxaw ne kii ci waaye na la bokk sañoo ko waaye nag sañ ngaa rafet njort bu mu bon ginnaaw jullit la bu bon ba nga ne kii ci waa sawara la bokk sañ ngaa ñaaw nag njort waaye bul atte ndax sunu borom tabaraka wa taala moo moom atte bokk na ca te bi ci mujj mooy riba riba dafay mab ni muy ni muy mabbe alal fii ci àdduna noonu lay mabbe jëf yu baax itam moo tax Aïcha radiallahu taala biñ ko waxee ne ko Zayd ibn dafa jël ab jaam leble ko ci juróom-ñetti téeméer ba noppi wëlbatiku jëndaat ko ci kim ko lebaloon ci juróom benni téeméer jotaat ab jaamam ba noppi waa ji yoreel ko ñaar téeméer biñ ko nettalee Aïcha dafa ne wax leen ko nee ko lam defoon lépp ànd ak yonente bi sallallahu alayhi muy jihaad muy leneen na xam ne yàqu na li feeg tuubut li feeg tuubul kon riba noonu lay def yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat lépp loo xam ne dafa taxaw ci riba sunu borom tabaraka wa mooy xëy màbbu ko mu yàqu moo tax économie yi ngeen di dégg ñuy daanu musiba di am ñu naan banque ba fayit na réew ma daanu na def na nangam def na nangam muñ ko gëstoo ba ca biir riba rek moo ko waral fii ci àdduna su fekkee nag ay jëf yu baax da cay tegu nag di yàqu kon jullit ci ñi war a gën a mën a daw riba ci la bokk allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna tibaa wa arina albaatila baatilan warsuqna tinaba واجعلنا من أحبائك وأحباء نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين